jubboo leneen nekk benn benn exemple bu ndaw yàlla dafay wax chérif fa in araada fisaalan an minhuma wa tashaawurin fala junaha alayhima yàlla nee na même euh, euh, question ku jigéen ki amul droit tëb tëb rek ne damay feral soxna yu bëri nag dañ koy def mais amuñu ci waxtaan la ba juboo ku góor yi amul droit tëb tëb rek ne ko feralal déedéet dañuy waxtaan indi ci kaw taabal ji ku nekk jiital ragal yàlla ku nekk jiital ragal yàlla ci responsabilité bi mu leen jox ci lii bébé ñu waxtaan ba juboo ci benn kàpp yàlla nee na ku góor ak jigéen parce que bu fekkonte ne bi dëgg dëgg yàlla fa ar-rijaalu qawwaamuuna yéen laa jox doole gi te naan ku góor ci bés boo bëggee rek ne ko arrêté allaitement bi mu arrêté mais daf ko ne non non su ngeen bëggee avancer ngeen bëgg a arrêter allaitement bi wala ngeen bëgg a feral lu doom bi da ngeen waxtaan ci seen biir ba juboo te bu ngeen waxtaanee ba juboo nag falaa junaaha alayhimaa ndax li ko jiitu yàlla dafa waxoon ne xale yi lañ leen nàmpal deux ans kon nag soxna yi euh, xale yi yàlla nee na wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni waaye nag li man araada an yutima radaa imposé wu ko kenn moom yàlla mais nee na ku bëgg daal xale bi dëgër matal arrêtement bi yàlla nee na at su ngeen bëgg a matal ñaari at nag yow ku jigéen ki bul tëb tëb jël décision yow ku góor ki bul imposé ma bëgg a wax foofu rek mooy ne yàlla ci waxinam ci diggante nit ñi amul kenn ku mu jox sulta ak saytara ci kaw nit ñi ndax yonent bi daf ko ne lasta alayhim bi musaytir euh, nekkuloo fi de wa ma anta alayhim bi jabbaar nekkuloo fi benn genre dictateur yooyu boo xamante ni bi da ngay jóg rek boo xëyee lu sa xel rek nga bëgg imposer nit ñi yàlla ne ko déedéet lasta alayhim bi jabbaar yow dañ laa yónni maa ala rasuli illa al balaa ñun nag li ñu doon ak jéem képp la ñu xam ne rek responsabilité bu rëy la yàlla bàyyi fi ñu bëri dénk la jigéen responsabilité bu rëy la yow it jigéen yàlla bàyyi fi ñu bëri tànn góor jox la ko ragal leen yàlla ci seen dund yàlla dimbali leen ngeen ñàkk a ragal yàlla ci seen dund yàlla génnee barkeem ci seen diggante ngeen di rayante rek te du ngeen xam te du ngeen tàggoo te du ngeen xam lan moo indi problème donc yàlla des koy des koy jiital ci diggante bu ne ca korogana ngay commencé ba boo ñaani jee ba buñ la mayee yonent bi bàyyiwul dara te yàlla nee na maa faram naa fil kitaabi min shay suñu tiiree ji nag ñuy tiital amuñu luñ ci tiit amuñu it luñ ci baisser la tête comme maa ngi koy wax démb parce que ñu bëri ci ñun dañuy xaw a am benn genre faiblesse bi ak sentiment d'infériorité noonu lañ koy waxee ci tubaab bi bu ñuy wax ak seeni i collègues wala affaire yu mel noonu wala bu ñu gisee tubaab au ñu assumer te xam ne diine amul lu bon luy war a tax nga sëkk yàlla nee na wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin yàlla nee na yéen yéen a nekk ci kaw ñëpp mais condition ngeen doon ñu gëm donc fexe leen ba condition ba nekk ci yéen te bu leen xool kenn ak bëtu infériorité waru leen xool kenn ne yéen a ko gën xaj ba sax ba ko mën a xoolee xalaat la ca am yàlla wax ak noonu waxuma la ak nit mi yàlla bind ci noppam yàlla su bañoon réew mi wala adduna bi am ay yéeféer yàllaa dul bind yéeféer faf te bind iblis ma ne woon yàlla euh, ñii maa leen gën xalaqtanii min naarin wa xalaqtahu min tiin donc yàlla mi bind malaaka ni mu bindee malaaka tax ba malaaka mënta mooy yàlla yàlla moom moo bind nit jox nit la possibilité de dire oui et de dire Donc, toi, tu es qui pour l'empêcher de dire oui ou pour l'empêcher de dire non looloo nekkoon liggéey yonent bi c'est-à-dire xar tànk tubayam ba nga xamante ne ni ñëpp dañuy libre pour wax ne gëm naa ñëpp it dañuy libre pour wax ne gëmuma waaye yow li libre ba ne gëm naa xamal ne boo nee gëm naa cette parole est contraignante loolu de wax jooju daf lay imposer à ce que nga am yenn comportement yi yow mi ne gëmuloo nag yàlla nee na waxuma kenn mu def la lenn sama digganteeg yow la boo deewee boo ñëwee may xool la ma neex ci yow ma def ko alam taalam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuadibu man yashaau wa yaxfiru li man yashaau donc yow yaay eh, kan lay condamné nit ñi di leen yóbbu safara ak xaw laa ilaaha illallah allahumma salli wa sallim ala nabiyil ataa bil hudaa wal karam wal karam salaatan taduum wa tabqa ilaa qiyaami anaami wa xaashihuma ملك نخل دف يفعل في ملكه ما يشاء تعالى tëjee rek mooy beneen point bu am importance mooy ne euh, borom kër yu bëri dañuy jàpp ne seen waxtu ba ñu duggee ci seen biir kër li ko war a nekk rek moom mooy relax te du nelaw xool télé bi sans jéem a famille bi ñu xam ne famille nga jox ko lu mu dee dee vingt minutes par jour nga tëb samedi ak dimanche bu la neexee wallahi njariñ la muy indi ci kër ga taaj soxna taat ay doom kaay leen ñu waxtaan rek ree même bu ngeen waxul xadis même bu ngeen jàngul xasida même bu leen jàngul dara kaay leen ñu toog ñu bokk lekk kaf ree loolu day dundal diggante te yonent bi euh, saxaaba yi nettali nañ ne moom dafa daan liggéeyal ay soxnaam ba dégg ñu ne allahu akbar bu ñu nee allahu akbar mu génn kër ga door a dem donc dafa doon dund ci biir këram il faut que ñu xam ne la vie familiale ak c'est-à-dire bokk ak sa soxna say doom ngeen di bokk di kaf di ree te mu nekk lu assidu luy luy dundal diggante la te luy dëgër luy dëgëral ab famille la li gën nag moom mooy jotaay yooyu boo ci mënee am par exemple jotaayu 30 minutes nga fexe ba bu xale yi Euh, yokkat bu bu xale yi tiit wala ñu affaire bi yàgg ci ñoom nga def ko 30 minutes yoo xamante ne 10 minutes yi yaay jàng alquran ñu dégg 10 minutes yaay jàng alquran ñu dégg moom borom kër waaye na jàng de na mokkal de te na jàng lu baax it nga jàngal sa soxna xale yi ñu màgg ci loolu lumière bi ngay indi ci kër gi ak barke bi yàlla di wàccee ci kër gi ndax sa 30 minutes yooyu wallahi moo gën sa 10 heures de temps ya ngay def ci entreprise ba di fa jël alal di indi ci kër gi parce que loolooy indi barke ci kër te kër yu bëri dee nañ kër yu bëri seytaane dëkke na ko ñu jox xaaral ma seeti maa mën ba ma seeti sëriñ ba ñaanal ma listi xaaral ma dara dara li tax kër ga daa amul lumière te lumière yàlla fu mu dugg seytaane fëx te kër bu ñu dul jàng alquran du fa def salaatu ala nabi du fa zikar mais nooy def ba seytaane du fa dëkk mathalu alladi yadkuru rabbahu walladi laa yadkuru rabbahu ka mathali alxayi walmayiti ki koy def ak ki ko dul def du ñu def day aar boppam te yàllaa ko garanti yàlla moo ko garanti yonent bi sallallahu alayhi wa kër ku jàng ayatul kursi balaa ngay tëdd yàlla la garantie sa sécurité ba keroog nga yeewu nga xëy jàng ko yàlla garantie la sa sécurité ba keroog ngay nelawaat guddi zikir dafa am importance ci benn jamono yi passé ci zikir mooy dafa am importance day dundal xolu doomu aadama te ki ko dul tàmm di ko def du ko def du ko def bu yàggee xol ba day dee te bu xol ba deewee ndax liy raxas xol li yàlla di wax kallaa ba raana ala quluubihim maa kaanu yaksibuun raan boobu ñun ñëpp ci ay bàkkaar lañ dëkk dañuy xëy suba ba jant soo di dóor rek li yàlla di wax dañuy xëy suba ba jant soo di defi bàkkaar liy raxas bàkkaar mooy dikk liy raxas xol mooy sikar di gars di wax doomu aadama ab jullit day zikr soo xamul sax looy def nga jël sa kaamilu alquran fas yéene zikar te zikar te ñu xam ne adduna bii loo fi def yàlla fay la yàlla dafa négligé wul dara wa ma rabbuka bi gaafilin amma foofu rek pour wax ne yàlla bi nga xamante ne bii négligé wul xobu garab xobu garab buy wat yàlla négligé wu ko xobu garab biy wat li koy wattal yàlla bind ko mission parce que xobu garab biy wat du lu hasard hasard man ak yow la yàlla amul hasard yàlla lu mu def daf koo calculer daf koo xam ndax fowul foluwul amul jamonoy fo afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun moo tax mu ne wa indahu mafatih wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala habatin fi zulumati l ardi wala bu wow ba wala bu tooy ba illa fi kitabin mubin wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ñu xam ne yooyu ay mbir la yu am importance beneen bi may tëjee mooy euh, ñu bëri ci soxna yi ak borom kër yi jamono yu ngoro ba rek kay neex bu ñu ngorowee ba dem ca kër ga une semaine deux semaines trois semaines xalaas ku nekk day tracé dundam yàlla nañu yàlla musal ci góor guy teg bëtam ci li jëkkëram di am li jabaram di am loolu musiba la te loolu dafa indi benn mbëgg bëggu àdduna ci xolu nit ñi ba bu ko soxna si sentiré bu soxna si sentiré ne jëkkëram da koo teg bët ci li muy am moo ko ëpp salaire wala am na nangam ak nangam wala réalisé na dara moom tamit xol bi day commencé bon ñoom ñaar ñu dëkk ci xol yu bon góor yàlla moom la jox obligation bu dem uti indi dama koy wax de looloo fi am de ay dañuy naxante rek ay indi cinquante cinquante yàlla waxul loolu Khadija radiyallahu anha dafa amoon alal yonent bi ñëwul naan ko indi cinquante cinquante de góor yàlla da ko jox responsabilité yor soxna su bëggee yàlla gërëm ko na yor soxnaam te ñu xam ne bonheur dañ koy chercher yàlla nag moo koy maye te du ko may ku ko utul man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba mais ay condition nga dem uti ko de aljabdu fi ljiddi walxirmaanu fi lkasali fansabtu sib an qaribin gaayat al amali loolu la waykatu arab ba wax soo ñu ngi jégalu ci guddal bi te ñaan yàlla barkeel euh, jotaay bi barkeelal la bu baax a baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla barkeel lépp daal di tatagal gan ñëpp di ziar sama sama alaaji bi nga xamante ne moom moo jógee màkka yàggul di ko ziar bu baax ci yoonu màkka bi di ñaan yàlla nangu umra yeeg aji yeeg yëpp daal ñoo ngi koy jégalu bu baax nag in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wa salaatu wasalaamu ala rasulillah maa ngi ziar sama yaay yëpp suñu grande sœur yi tout le ñu ngi fàttaliku aussi suñu yaay yi fi nekkoon ñoom tata ak jaam et tout ñu ngi ziar ñëpp di gudd di jégalu aussi ci guddal bi quoi wa salaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf salaamaaleykum من يروم العنا دارين دون فخر داولين تجوك جبي نخمي يعني حفر تسلم تباك مي بلام داعي موكيو دان ساجي غاني تتسبيت مو تمر مي كوجار من القصيد المجيد كامل رمل bañ tamaa di sabar bu muy taw innahu mamurad mooy mooy ki ko jar day naane desu ko daan day naane desu ko daan day naane desu ko daan day naane sëñ Babacar Si day naane sëñ Babacar day naane ko ca kaw day naane desu ko naan kii rek moo momata far far leen ci may bay ku ci far doorus te kenn du lare far leen ci may ku ci far du sopp sëñ Babacar far leen ci may ku ci far ani soppey sëñ Babacar far leen ci may ku ci far loxoy ca kaw far leen ci may ko far doorus kenn du la ree bihi wa innahu xaqan xaqan la xayru wa dar buur yàlla may na fi may loo xam ni kenn amu ko buur yàlla na fi may ku sopp sëñ Si loxoy buur yàlla may na fi na fi may kenn du Babacar si buur yàlla may na fi may kenn amu ko ñaan may nga ma yaa yor jàmmi réew nguur gi ak juddi xalifa may ñaan may nga ma jami nguuru gi ak judi xalifa me ñaan naa la may ngamal yaa yor jàmmi jafandu texe gi mooy sëriñ Babacar Si ñaan naa la may ngamal yaa yor jàmmi réew da jëpp gi mooy sëriñ Babacar Si ñaan naa la may ngamal yaa yor jàmmi réew mi doomi nguur gi ak jub yi ay bu ñu sàggan ay bu ñu sàggan loxo yi bu ñu sàggan ci ba ay bu ñu sàggan loxo ca kaw bu ñu sàggan ci ba ay bu ñu sàggan loxo yi bu ñu sàggan ci ba ay bu ñu sàggan loxo ca kaw bu ñu sàggan ci ba ay bu ñu sàggan loxo yi bu ñu sàggan ci ba ma ne ku ci soob Sëriñ Babacar loxo yi ca kaw ku ci soob sopp Serigne Babacar loxo yi ca kaw ku ci sopp Serigne Babacar loxo yi ca kaw loxo ca kaw ku ci def ni yow mal qiyam doo fa taxaw ay bu ñu sàggan loxo yeewali tàndar may aljana damay am na cay tooli tool yomal qiyaama ñun fa la ñuy toog di wax ee bu ñu saagan loxo yi bu ñu saagan ay bu ñu saagan loxo yi ca kaw ñu saagan ay bu ñu saagan ابن ساكن جباب أي ابن ساكن جباب لخي ابن ساكن جباب أي من تندر مي الجنة أي بي أمنا جي لفجو تندر مي الجنة أي بي أمنا جي لفجو تندر مي الجنة أي بي لخي جو تندر مي الجنة أي بي أمنا جي لفجو تندر مي الجنة أي بي أمنا جي لفجو تندر مي الجنة أي بي أمنا جي لفجو تندر مي الجنة Baye May am na tey dafa ci kontaan am na tey dafa ci kontaan da may aljana Baye May am na tey dafa ci kontaan da may aljana Baye May am na tey dafa ci kontaan da may aljana waxtaan. الشيخ والمختار يا في المن سيف جلدنا أي لعنتنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم lépp ci xalifa barakallahu fiika Seydina Mass kooku président la kooku mooy président Massamba ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ñu may fekkeewaat bés bi te ñu def ay ati at yàlla di ñu muñal ci yërmandeem ci mbaaxam mu bàyyi ñu fi may ñu temps bi may ñu tal bi donc ñoo ngi ko koy sant suñu borom subhanahu wa taala di yokk rek à chaque fois sant ñun waa reen li ñu yàlla jagleel ci yu bëree bëree bëri incha allah dinañ ko jéem a détaillé waaye balaa loolu incha allahu taala dañuy njëkkee dalal suñu gan gi mu di Chérif Ibrahima Aidara At Tidjani ñu koy naan bismillah ci dëkk bi bismillah ci njabootam bismillah ci ay mbokkam jullit mel na ni commencé na miin dëkk bi fa tabarakallahu ñu koy massawu coono xam nañu coono yi mu jóge gàmmoom bi mu génn gàmmu bi muy def wakaam gàmmu bi mu defal Serigne Bachirou gàmmu sëñ Bachirou euh, Thierno donc xam nañu coono après coono la génn ci loolu dalluwul xam ngeen tukki la ak li ci yonent bi wax jël tukki ñëw ba fii fii ak sori na. waaye mu ñëw rek bokk ñun guddi gi comme nu mu ko aada woowoo def depuis quelques années ah nit nag dafa mel ni ñu ne boo ko ne yàlla na la yàlla fay amaloo ko kàddu bu ko weesu ndaxte fayum yàlla yàlla rek moo tànn nu muy fayee ak la muy fayee ak fa mu koy fayee mun na la ko defal ci ñaar yépp àdduna ak àllaaxira mun na la ko dencal àllaaxira waaye ñun dañ koy ñaanal yàlla faye ko ko ñaar yépp taxawu ko ci àddina taxawu ko ci njabootam taxawu ko ci mission bi muy dox defal ko wér gu yaram may ko muñ ndaxte mission bi ñu nekk ku ci nekk te muñoo mu gi da ngay teg micro rek te nag c'est normal que ñu leen di teg yu mel noonu ka ñuy toppandoo la moo leen njëkk ñam yu noonu lu ne teg nañ ko ci kawam wax na ñu ne ko noppil njabarkat nga wax na ñu ne ko noppil fenkat nga ah, amul lu ñu tegul ci kon dem sax ba dóor amaana nag ñuy waare tey gars yi àgg ñoom ñoom foofu yàlla leen ko yàlla musal <laughs> imaam nee na yenn saa yi waaye imaam bala maa ñëw ci moom comme man tey la gontoo na ma xaar rek su ma koy kaar soriwul man dama ko joxoon thème ne ko waxtaaneel vie sociale bu moom mu waxtaanee sama kër. waaye maa ngi xaar yow ñëwuma ci wax xaaral ma pare danga <laughs> sant Serigne ak dalal euh, waaw ginnaaw bi ñu dalalee Cherif jàmm ñaanal ko jàmm dañuy sant waa Rennes bu ñu nee sant waa Rennes waxuma daayira Tijaaniyya de Rennes waxuma waa Tijaan de Rennes waxuma jullitu Rennes dama ne waa Rennes yóbbaale ñépp tijaan ba xaadir ba murit ba waxaat ëriya laayeen ba ak fu waaye munta di tudd woote woowu jullit ba ku dul jullit te sax am yéeg-yéeg ci ñun ñoo ngi leen sant ñoom di sant tamit aussi ñi jóge fa sori ba Limoges Paris Nantes Le Mans un peu partout xam nañu distance lépp def nañu distance yooyu yëpp def nañu leen donc xam nañu distance bu nit jógee ba foofu ñëw ba fii di ko bokk ak ñun da ko koo jaral ah ñoo koy santal yàlla di ko sant it ñoo ngi koy santal yàlla parce que sànq rek ñoo ngi ciy waxtaanee maag Seydina au passage maa ngi koy jéggalu ci lan ci programme bi ñu tegoon bëggoon tàmbalee vingt deux heures programme bi parce que lii moo ñu daboon daaw ñu commencé minuit là on est presque bientôt une heure du matin te suñu gan bi jotagul micro bi te loolu nag ñun ñëpp presque moo ñu tax a jóg ma digoon ko incha allah bu ñëwee moo maam daaw boobu ñoom ñooy yor. guddi gi incha allahu taala mais dafa ñëw tombeek imaam tàmbalee waxtaan comme Cherif dafa doon dugg ñu koy dalal bëggoon rek dalal Cherif imaam àggale waxtaan bi loolu moo tax donc ñu daggoon fi ñu toll woon pour mën a continuer programme bi waaye incha allah ñu fi ba quatre heures lu ci xaj rek daan ñu ci xajal incha allahu taala euh, gannaaw ba ñu sante donc ña fi teewee ñëpp. ak ni ñu ko waxee ñu jóge un peu partout ginnaaw bi ñu santee waa ren sant tamit ña nga xamante ni daawoon nañ ko fekkee na ko imaam waxee léegi te yàlla def ñu tukki fekkee wuñ ko bii ñii ñoo ngi leen di santal yàlla ndaxte tiyaaba bañ ci waroon am dañ ko ciy am ala kulli halin nuñ ko xamee rek ku daan jëf ju baax moom bés bu la gàllankoor jàppee dañuy continuer di fay yàlla maa doonoon Euh, yàlla maa ngi noonu léegi nag dañ ko defoon pour euh, bala ñoo ñëw ci tem bi thème mu ak temu mu tawxiid lañ ko defoon dañoo tàmm nag léeg bu ñu demee ci gàmm yi animation bi la ci gën a bëri moom mooy que ni yi la ñuy jox bi. sooraaw yi woykat yi bi maanaam ni ngeen ko mën a déggee ñooy yor la plupart genn wàll guddi gi su ko defee ñun guddi yu mel nii comme gaawuñu di si jot organiser lu mel nii yombul il est vrai que fii nit du fi jànge mun nañ ko ko fàttali nag ay devoiram wala ca yamu ne woon am lu mu ci fàtte wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin alhamdulilah borom xam-xam ñoo toog peut-être ci fii ci jotaay bi ñu toog nii ñi nekk ci podium bi ay borom xam-xam lañu waaye ñu xi ràññeew ay borom xam-xam li nga xamante ni jotuñ toog ci podium bi mooy demee noonu programme mooy demee noonu suñu hadaf nag gàmmu bii dañoo bëgg waxtaanee tawxiid parce que gis nañu li gën a bëri ci gàmm yi léegi dafay am ay débordement yu bëri ñu waxtaan ci lu bëree bëri ñu ne boo fexee nag ba jëlee ay nit fii ba Bruxelles fii ba Limoges fii ba un peu partout waxatuma sax ba foofu xataa fii ren nga bàyyiloo nit ki guddeem nelawam njabootam indi teg ko peut yi neex nañ waaye wax ko la koy delloo ci yàlla wax ko soo ko mënee xamal nan lay fexe ba delluwaat ci programme ba ko yàlla tëraloon li taxoon mu ñëw ci àddina loolu mooy suñu xadaf bu ñu yàlla jàppalee loolu lañ bëgg a def wax nag yomb waxtaane ci mbooloo yomb li moom lañ war a mbooloo fekk du loolu la ñu doon xaar dafay am amaana li ñu jàpp wax ko it fekk mbooloo mi déggee ko beneen déggiin loolu yëpp dafay am ndaxte euh, interprétation yi nu ñuy bëree comme interprétation moo mun a ñëw ci alquran waxatuma ci waxu nit donc nag ñuy ñaan yàlla nañu yàlla jàppale buntu tawxiid bu ñu bëgg ubbi dañ koy ubbi tuuti waxtaanee ko tuuti jox Chérif Moussa Wall ñu ko ñu maanaam mu euh, programme bi li ñu bëggoon moom mooy que ni imam def ko ci ñaari euh, en deux parties partie bu njëkk ba mu def ko ci olof deuxième partie ba mu def ko ci français man sama partie ma def ko ci olof def ko ci pulaar suñu paree jox shérif moom su ko neexee mën na ko def ci ànd bi moom mooy tànnal boppam shérif moom <laughs> kenn du ko ne defal bi wala defal bi moom <laughs> voilà kii ko doo ko wax lu mu war a def dikku su doon suñu sago ku ñu tudd turam ndaxte mérite na ñu ubbi seen kër ñu toggee fa ñun ñëpp xam nañ képp ku dëkk France xam nga lu xew France kenn du wax coono bi ci ne dérangement bi ci ne ña bàyyi seen kër njaboot yi nekk ci togg yi depuis quelque temps duñ ko expliquer kenn xam nañu manque de temps bi nekk fii ci dëkk bi donc loolu noonu yëpp buñ ko naree détaillé daf ñuy jël temps bu bëri waaye ñun ñëpp rek nañ fexe bopp ci wàllu donc suñu yaay yi ne ñu jël nuyoo yëpp. teg ko ci loxo tata maam taal mi nga xamante ni fi moom fi représenté suñu yaay ji fi teewe ci wàllu daayira yi fi nekk yëpp du ma lim daayira parce que leen man lépp laa jàpp muy benn ñu jël nuyoo yëpp teg ko ci loxol Serigne Diop góor gi Diop mu jottali ñu ñëpp gannaaw loolu ñu gaawantu rek dugg ci thème parce que temps bi def na dab waaw ah, ñu ngi sant nag waa Bruxelles ci parti ci ci parti bi ñu benn particularité bi ñu def boo xamante ni vraiment ñoo ngi leen koy encore une fois ñoo ngi leen encore une fois sant di leen gërëm non seulement ñëw nañu mais ñëw àndaale yàlla leen yàlla fay ak ñeneen ak ñeneen waaye ñoo ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp donc ci wàllu gërëm yi pour bañ a guddal ñoo ngi jaajëfal ñëpp. di sant ñëpp ku nekk ñu eh, ngi lay bàyyi sa borom subhanahu wa taala ak li tax nga jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc yal na leen yàlla fay ah ñu jëloon nag temu tawxiid ñu ne lan mooy tawxiid fan la tawxiid déparé ndaxte la jaamu yàlla yëpp mu ngi tënku ci loolu kalimatu tawxiid moom ngay duggee ci lislaam moom mooy mujj sa xol ci sa ci sa ci sa dund nga texe mooy allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye pour yàlla di ñu xamal kani nit nit pour xam li muy jëfe da koo war a jàng mu ne yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam mais xitaab boo xam la làmboo faalam faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dambik xamal yonent bi xamal bu dee ne xamal rek mooy jàng mën nañ la xamal xamal yàlla ku di ak noo ko mënta xamee xamal moom looloo xew ku ñuy jaamu te mu yeyoo ñu jaamu ko newu fi ku dul man ñii suñu sëriñ borom subhanahu wa taala bi maanaam man yàlla subhanahu wa taala man rek maa fi nekk ñu war a jaamu moo koy xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne donc ñun ñëpp nañu fexe xam ne ku ñu war a jaamu jaamu newu fi ku dul suñu borom subhanahu wa taala mais yemul foofu mu dalal yonent bi jàng mu booleeg moom professeur bu ñuy wax jibril alayhi salaatu wassalaam bi ko jibril njëkkee gis amul lu mu ko wax lu dul iqra jàngal mhm. te loolu mooy problème mu bi tey jàpp nañu la ci gën a bëri bu ñu amee imam bi ne ci dëkk bi waratoo xam nu ñuy sangoo waratoo xam nu ñuy sangee néew xam na ngay jullee wala jàpp nga yow li nga ci am doy na la ca des danga war a daw gannaaw li nga war a dunde te loolu nag yàlla moom moo la ko gàdduloon ci ñàkk jàng boobu ima imaam li mu fi détaillé ci wàllu problème mu kër yi problème majeur bi moom mooy ñàkk jàng bi problème majeur bi moom mooy ñàkk jàng bi parce que soo xamee li war sa diggante ak sa soxna sa soxna xam li war diggante moom diggante mag yow di diggante moom ak yow Mbacar léegi dafay xaw a takk suuf digganteem ak yow moom. sa digganteeg moom sa digganteeg moom maa ngi jégalu donc ci cafale yi ak wala bu kii bi euh, su ko xamee doom ji xam ko problème bi mën na am kenn newul problème euh, mënu fa am waaye problème bu amee dina néew. ndaxte ci xam-xam boobu moo lay yóbbee nga am ngëm-ngëm sa diggante sa borom lépp looy jëfanteeg sa doom lépp looy jëfanteeg sa soxna nga teg ko ci yoon ndax ragal yàlla boo xamulee yàlla munoo ko ragal mun nañu weddi wax ji waaye la sell mooy que ni boo xamulee sa borom. munoo koo ragal parce que léeg-léeg di bëgg teg tànk foo yaakaar ni fii la fekk du foofu aarifuuni qabla an taabuduni même su fekkente am na ñuy ne bi sellul wérul fa in lam taarif ci asar am na na delluwaay ci Qur'an am na delluwaay ci xadis yeneen wax yu koy sara même su fekkente ni xadis bi bi bi ni am na ñu ci d'accord ñu ne xadis en tout am na marjiiya ci Qur'an gannaaw bi suñu borom subhaanahu wa taala waxee yonent xamal ku ñuy jaamu ne wu fi man mhm. mu dellu ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist laa ilaha illa huwa al azizu al hakim inna diina inda allahi al islam moom muy seedeel boppam suñu suñu borom subhanahu wa taala ka ñuy jaamu ñëw fi ku dul moom wala kaye yoo jaamu ba bokk ñëw fi ku dul moom mu ne malaaka yeeg boroom xam-xam yi d'accord nañu seede ko gis xam-xam bi ñu bi ñu bi ñii mu seede nañu euh